jërë ngeen jëf mbokk yi ñu suivre fii ci People 221 ñu ngi leen di nuyu di leen siyaar di leen jaajëfal di leen ñaanal jàmm te di ko sàkku ci yéen eh, tey nag ñu seet ci suñu benn frère fan yi nag dafa tee dëkk bi fan yi moom dafa engagé wu ah, moom lañ ñëw fa seeni waxtaan ak moom parce que tung na du teew ñu ne daal fan yi gis nañ ko ci réseaux sociaux yi muy ñëw di plaider ki nga xamante ni mooy bambal yi dëgg la version yi bari na coow yi bari na mais dañuy ñëw dégg ko suñu micro waxtaan ak moom jaraaf dañ la nga nuyoo waaw people 221 maa ngi leen nuyu. mbaa mhm. yéen a ngi si jàmm. ñu ngi sant bu baax. Euh, yàlla na seen jàmm yàgg. allahumma amiin mooy loolu. Mhm. waaw. jaraaf temps yi lan moo tax nga saf sàpp ci réseaux sociaux yi lan mooy problème bi. ah gars yi dañu koy sax ñu sàpp si réseaux sociaux yi gars yi ñu gars yi ñu tooñ rek. taxaw mhm. ñu affaire yi noonu. xaar avant tout ça d'abord ma nuyu sama followers yi. mooy comme ni ma koy faral def suñu baax. micro bi teel micro bi. mooy loolu xam nga maay Sénégal Bambali. comme Yeesaay Yeesaay mes amis de l'eau mes amis Sinapp sama followers yi sama amis Instagram oh, ak sama ak sama ak sama amis Sinapp Sap Sinapp Sap ah. am logo. ah waaw de ñu dëgg la mooy loolu xew. dëgg la ah. dëgg la mais mais dama dégg ci say biir wax léegi nga ni mu mel ni dañ leen a sosal. Euh, kii di tiidaa génn am ay wax yoo xam ne daf ko wax ah, yow naka ngay analyser wax jooju noonu bala ñuy dugg ci biir. Tijaan dafa baax di wax rek dafa nekk di di ñu tuuma rek mais yàlla xam na ne am jox jotam. Mm-hmm. xam nga soo xewee war nga nekk ci yoon lu bëri lay feeñu. Mm-hmm. te Bambaali dafa xew. Mm-hmm. nekk ci yoon fan yi xam nga gis nga nu mu tee nu mu tee dëkk bi. famille famille Farmaane gis nga fan yi nu mu tee dëkk bi. Waali fii Kéba fii Bambaali fii. te mooy loolu. dégg nag xam naa ne moom na xaaral ma tam ma jéem a bokk ci coow li. loo xam ne ni mu ne am na depuis xaw ma kañ. Mm-hmm. depuis boobu léegi depuis mën a xam quatre ans xam a kañ. boobu léegi. Mm-hmm. mu bëgg bokk ñëw a bokk ci coow li nii. Mm-hmm. ndam du nangu loolu tamit. duñ si daan duñ si daan loolu duñ. duñ ay duñ ay wàlliyaan si dëkk bi tël micro baax tël micro baax. waaw duñ ay wàlliyaan tamit tamit tamit si dëkk bi. si doom dëkk bi lañ si dëkk bi lañ dëkk. xam lañ xew. mais yow ñoom ñaar bi ñu xamante. yow fi la la fekk ci bàmbaali la la fekk wala fekkul fi. non fi la ma fekk. fi la la fekk. waaw mais moom daan na ñëw soirée. daan na ñëw soirée waaw comme comme kuy ñëw baal si rek comme simple personne bu ñëw baal si rek nii ah. mais man dama déglu ci yaayam mu ni. Mhm. version yaayam. Mhm. mu ni moom dem na ba ko ñoom bambaali. Mhm. expliqué ko yaayu bambaali. Uh-huh. yaay bambaali ni ko sa doom mooy kat sama doom góor la. sa doom mooy déplacé wu di ko seet si fii. est-ce que léegi loolu lépp am ci nag tax na tey ji bambaali set. waaw mais tamit yow sa doom su la ñëwee ni mën a diw moomu tooñ. yow sa wareef yow muy waajuram di nga di nga dem laaj. yaayu yaayu yaayu ki la tooñ. Mm-hmm. am déet. Mm-hmm. yaayu yaayu Tida ba ma def mu ñëw laajte kii sa doom moo tooñ sa doom. Mm-hmm. am na si droit. xam nga ni bi. ba xam moo deful deful. ba xam moo def moo deful. Bambaye deful defaanuwul. Tida moo déréglé déréglé boobu rek. wala man dama yaakaar ne dafa yaakaar dafa am dépression de. mais en tant que jigéen jigéen ci ci ci ci mag yi ñu doon wax ni jigéen. bu la xoolee ba seppantal la bu la nee yow la rek. jàppal ni yow la. waaw mais léegi jigéen yi jigéen yi njëkk lañ mhm. mhm. mhm. léegi dañoo wow bët. dañoo ñeme dañoo engagé. jigéen yi léegi dañoo wow bët bi de. génération bi mun nañ dem defee seen problème ci ba sax. ñëw ñu ne yow la. gis nañ ko fi ba taay. man la ñàkk wax man nag ñëpp. wax man la ñëpp ñoom ñëpp yemuñu ko mais am na xam ne ni mooy loolu. mais Tida moom pourquoi Tida moom. Oh, merci rek. kooku. kaw moom mënu ma ci sori quoi dafa dafa kooku wow na ba ñeme na. Mhm. ndax ñu muy def nii man dama yaakaar ne sax jigéen sax amul warul warul warul taxaw si internet di wili paane sa bopp. Mhm. war a suturaal sa bopp nit mooy suturaal boppam quoi. Mhm. suturaal sa bopp kan mooy suturaal. wala bëgg a bokk si bës bi wala bëgg a yenn bës bi rek moo tax muy def yi jar ko fa jar doo soutenir sa doom même su nekkee sax loolu loo am sax donte amul sax même su nekkee sax moo am mhm. mais nga soo ko waxaat waxtaanee waxtaanu bind wala nga waxtaanee waxtaanu suuf mhm. solution faju ci mais nga mhm. bàyyi mu sedd fii yàllaa yor ñëpp kenn yorul kenn yàllaa yor ñëpp kenn yorul kenn nga gérer sa bopp sa doom nga bo nga gérer ko su nee bambaale moo jur doom bi bambaale nangu na dafa tee dafa dafa dafa tee doom bi dund wala doom bi doom bi bañ a dund. Mm-hmm. su ko nangoo ak su ko nangu nag yooyu yëpp dafa tax mu dund mu dund ah. moom nee daan na ko fréquenté. Mm-hmm. daan na ko seeti. te yow ku la xam-xam sa diggante ak bambale. Mm-hmm. mosoo leen a seq comme ay jotaay ñëw toog waxtaan teg ataaya bu dul soirée. ah non da nga koy laa wax. ah waaw non wóor na Serigne Saliou Mbacké du ma waat du ma du ma waat ay caaxaan Tida mosuma gis ko noonu Bambaali soir rek la ñuy daje soir lay dajante ak moom ak Mixa bii. Mhm. Mixa dafay ñëw. waaye dafay ñëw. lu mu fi def fi laa xamante lu mu fi def Mixa lu fi def. ah Tida moom fi appartement yi laa xamante ak moom moom du ko weddi. Mhm. dama la ngeen laaj ko nee na ko yow Dia fan ngeen xamante fii laa xamante ak moom. après ci yan ci yan constance ngeen xamante. non ah mais am na loo xam ne sax. loolu vie privée am ak sama vie ak ak ak loo xam ne fu ñu xamante ne mooy loolu mais en tout cas daal fii la ñu xamante ne. Mixa waaw fii la ñu xamante ne vie hmm. euh, Mixa fii la ñu xamante ne. lu ah. ko si génnee si génnee du ma si génnee moom du ma ko si génnee wax naa ko euh, bi passé sama émission bi passé dama koy waxaat dama koy confirmer du ko si génnee moom xam na ma xam naa lu ma wax dama leer quoi. mais souvent ñu gis ni yéen ñi nga xam ne yéenay ànd ak artistes yi. Hmm. comme da nga gis benn booy bu mool ñëw soirée surtout yéen sinapkat yi mhm. des fois ngeen sinap benn booy parce que dafa mool mhm. pare ñëw placé ko artiste bi est ce que yow xamee woo ko mixa gis ni booy bi dafa mool rek nga ñëw placé ko Bambali waaw Bambali muy lu muy doy ay genre didaay nii pla Bambali dafa ñàkk ku ko nopp wala dafa ñàkk ku muy ku muy ferga wala dafa ñàkk koo xam ne nii mooy loolu su ko du ko dem uti ayer mais du du biir mixa bi la ko ñëw utee wala wala genre Bambal dafa mature dara bul dara bala moo def dara sax day laaj entourage am am nay famille am na entourage. Mhm. bala moo def dara wala moo dugg dara. Mhm. dañuy laaj ñu xam. Mhm. ndax moom du génn. dara bul dara su génnee concert la dem wala studio. wala mu dem wala wala wala mu dem doxloo ay affaire ay affaire personnelle am. su ay dox dañuy dem def sax ay affaire personnelle ba du moom kese duñ ko bàyyi sax moom kese muy génn. doonatul ku ndaw doonatul artiste bu ndaw quoi. dégg xëy na rek léegi la ko gars yi xamee doonatul maanaam daal bu mu dalee wala bu ñu ko dalee xam ni léegi la ñu ko may ñu ko bu mu bu mu dalee woy du tey quoi. Mhm. yàgg na. Mhm. voilà sànq si biir wax maa la dégg nga ni essence yi waa Faramare ni ñoo téye coow lii. Mhm. kon yow da jàpp ne dafa am ñeneen ñoo xam ne dañu nekk ci ginnaaw booy bi di ko gonfale. ah man dama loolu laa yaakaar ko xam naa ne moom lii du lii du xelam kese lii dama yaakaar ne ay digal la quoi. ndax boobu léegi mën na affaire bi def na 4 ans. 4 ans ci ginnaaw xale bi ñii di wax ah, jël na bopp bambara jël na cukkal bambara jël na bëtu bambara. jël na aadama aadama moo wax loolu. te aadama tamit moom moom moom ci farmaare la bokk ñoom la doon plaidel. Mhm. kon léegi aadama moom bu demee ba gis xale ba def analyse ni xale bi moom la. aadama <sighs> non aadama dafa ne nopp yi noonu nag nopp bambaale xaw ma bakkan yi noonu nag bopp bambaale man sànq rek laa yónnee ah, euh, vocal aadama. Mhm. wax ma ne ko yéen da ngeen jaawale bopp ak cukkal la ñuy dañuy jaawale. Mm-hmm. ba Mali cukkal lam mm-hmm. xale bi jëlam. Mm-hmm. dañuy dañuy confondre deux choses. yu différent. jë ak cukkal la jaawale. xale bi jë la am jë. ba Mali ñoom kenn famille kan moo fa am jë. def na lu muy def daal ñun ñu ngi toog di ko déglu. te lu mu wax bennam ñun ñu ngi taxaw pour pour pour weddi ko wala pour euh, euh, tegal tuuma suñu bopp. ñu ngi fii quoi. d'accord léegi. Euh, moom nee na pare na pour ñu dem def test ADN léegi Bambaly ak ak fi mu toll nii est-ce que jotul moom tamit li ñu naan weddi du ragal setal sa der la mu génn. xanaa defati test xanaa deuxième deuxième fois test xanaa. waaw ah, da am na bu ñu def ba pare ngeen test bi lu tax doon wax si test bi. Mhm. laaj lan moo tax duñ tax duñ def wax si test bi. Mhm. waaw yow ma dafa am problème man kooku dama yaakaar dafa am fi de mémoire say biir wax nga ni yow yaa ngi xamee mixa. Mhm. mais xamante bi bambali bokk ci wala bambali ci la bokk. Mhm. man Tida mu koy xam yàgg na quoi fekk jamono yi sax bambali commencé wu tëgg soirée nii au cent pour cent noonu mhm. man dama doon livre laa woon. Tida dañoo dañoo boole xaw ma fàtte naa sax xaw ma boole jamono yi premier cours ma boole ak moom. mu ne ma sëñ bi damaa bëgg ñoo jël si ma fii jamono yi ay ay daaw temps couvre-feu bi. Mm-hmm. ça fait léegi xaw ma na deux ans ou trois ans. waaw mm-hmm. ah. mm-hmm. léegi mu woo pour naa ko ñoo jël si ginnaaw sami municipal indi ko mixa ay deux heures trois foofu yóbbu bàyyi ko foofu. Mm-hmm. si ëllëg si après mu may jox la ay courses su ñëwee mixa saa ñu jëlee appartement moo copine def ay 5 jours 6 jours mu woo ma te heure yooyu couvre-feu bi man dama amoon laisser passer. dama doon daw guddi gi dama doon daw. Mm-hmm. suñ soxla seen i seen i seen i seen i soxla. seen i bagages comme ay naan. naan waaw wala. non ay sàngara. ñoom waaw ñoom ay sàngara. waaw moom Tida. Tida si boobu. moo la doon ñoom moo doon yónni moo copine noonu te du benn yoon du ñaar yoon. dem ba dem ba noonu dem ba noonu après mu man ak moom ñu am ay discute mu yoroon ma xaalis après ñu xëccoo ay coor ñu bàyyante mu dem ma dem toog ay toogaat ay years ay lu yàgg sax après dégganteetuñu après ba Mali commencé tëgg euh, Villa Cristal. Hmm. ñu ñu daje fa benn jour. après xam rek coow lu yàgg après ñu gisante rek mu kottu ma eh jaraaf gëj naa la gis nee na man dama bàyyi la lu mu sedd ñoom dañoo tënk après noonu lañ commencé. Mhm. waxaat waxaat noonu après ma gis mu fréquenté soirée bambal néeg la noonu ñu chaque jour saa yu tëggee Villa Cristal mercredi. Mhm. almari ñu daje foofu noonu nice mais suma gis mu dem si soirée bi di baatere wala suma gis bambali pare ñu duggandoo ci oto bi dem wala musuma gis te ñu ñoroon ànd maanaam bambali ñu ñoroon ànd. Mhm. soirée bi avant avant soirée man dama ko dem jël këram. jël ko jël ko si comme Sinapore taxawaay taxawaay Sinapore wo euh, Sinap ko ba ba ba Almadi. su ma paree. suy ñibbi ma baat ko ba muy ñibbi te ba ñoo ne ànd si oto bi si ñi ñooy ànd ba euh, ba ba ba ba seen kër mais mosuma gis Tida dugg suñu oto mosuma gis Tida mu pare mu bambaay jàpp loxo bi di ànd ak moom. Mm-hmm. mais loolu man su ma nee moom après mu taxaw fi man moo ko ëmbal man loolu dafa may jaaxal quoi. kon daal da nga jàpp ni yow dafa bazardé boppam ci àll bi. waaw ah, ñëw ah. ñëw ñëw ba ko wéer bambale. yaa ko wax de yaa ko wax te ñëpp moom loolu la ñu wax. no yow yaa ko wax parce que yaa ne yow yaa ngi ko xaman yaa ngi yaa ngi xamante ak moom ci mixa mu la doon yónni ay sàngara ah. est ce que loolu ngay wax noonu am nga ci preuve moom du weddi laaj leen ko ndax xam la bëgg laaj ngeen laaj ko fan ngeen xamante mhm. ba léegi maa leen wax maa maa leen wax maa leen wax question ba léegi laaj leen ko yéeg jaraaf fan ngeen xamante fan ngeen njëkk a xamante mhm. laaj leen ko loolu mhm. mais euh, tey te te te euh, interview yi dégg nga dégg ñi ne ne kii ja kii kii kii euh, sekk naa kii sekk naa kii sekk naa xam nga loolu dégg ngeen leen koy dégg. Mhm. su nekkoon tamit ku yam la duñ ko waxal loolu. Mhm. am déet. Mhm. voilà affaire yi nan la demee nag. moom ñun moom xëy na dañoo bëri. dañoo am bayra rek mais tey fii Bambaali toll ñu gis ni kii di magam di Wally. souvent lu nit mës wax ci deram. jóg na fajal ko boppam dem na ci yoon. ba barki dem yaakaar naa liw faramaaren. barki dem lañ ko dogaate. est-ce que tey Bambaali fii mu toll nii. mënul jug dem def plainte pour seetal boppam parce que Bambaly nekkul artiste bu ndaw aussi. mais non non du dem def plainte di yooyu ba Wally sax avant la doon avant la doon mhm. soo nekkee soo nee lu luñ wax nga tontu luñ wax nga tontu su yàggee yow yow yaay da ngay sonn te da ngay sikk. Mhm. am na yoo xam ne da ngay bàyyi mu sedd wala da bàyyi gars yi tontool la. Mhm. nga bàyyi gars yi wax quoi. am na loo xam du lépp la tontu. lii Bambaly am mu siy tontu. moom mu ngi si ay répression mhm. mu ngi si signature contrat mi affaire yi noonu ak yeneen ak yeneen ñu ñuy waajal mhm. te su génnee léegi rek di ngeen di ngeen di ngeen di ngeen di ngeen di ngeen di ngeen ci xam dara mhm. ça ngi comprendre waaw noonu la fa demee téléphone bi génnee kooku de 14 bi te daa mel ni 14 nga laal de waaw loolu la saa yu coow li daa mel coow li daa mel coow li daa mel dafay commencé yaa ngi commencé encaissé waaw <laughs> <laughs> <laughs> Euh, d' accord daanaka ñu ngi may signaler ni fi li ñu mayoon ci ay waxtu léegi mu jeex. kon yow léegi tey boo amee benn message boo xam ne yaa ngi koy lancé kii di Tida ban message lay doon. damaa ne na toog ci pooju ndeyam gën a mhm. lépp loo gis waxtaan la. mu mhm. waxtaan ak waxtaan ak waa mhm. xool ñoom ñoom ñoom. ñu solution. mais du ay ay bambaale ma ëmbal xabaay bambaale nekk ci yoon. wala nekk ci nekk ci kaw nekk nekk nekk ci ay nekk ci ay business di toj di xew. Mhm. Ah, bëgg a ñëw mën a xaamal taqasalal bam bamba ndax fan yi mu ngi mu ngi def buzz. Mhm. bokkaale si buzz bi léegi nii kër. pour yàq carrière am quoi na ko Bambaali. est ce que tamit amul ñeneen comme li nga wax yeneen nawle artiste am yu nekk ci ginnaaw pour bëgg a yàq carrière booy bi. waaw xam nga Bambaali su ñoom suñ ko mënoo moom mooy gën tontu. mais moom mhm. tontul xam na ne affaire bi mu ngi koy gérer mu ngi koy gérer nice problème bi toll tolluñu fii. problème tolloo problème Tida. tolluñu fi mhm. nag ñun jànkuwante nañ lu gën a garaaw lii te teewul ñu ngi ciy génn. Mhm. ay jiñ ëmb ak ay jiñ lële loolu du suñu problème. Mhm. ñun dañ koy gérer. parce que dañoo xew nag. dañoo xam luy def xew si dëkk dañuy lire programme bi. lire programme bi bu baax. kon tey euh, ban message ngay lancé kii di Bambaly ak so soppeem yi nga xam ne aussi tamit ñu ngi koy suivre. dama koy gën a lancé na gën a góor góorgóorlu gën a bàyyi xel yépp ay jàngal la quoi ay leçon la dina mm-hmm. tax sax si doo bëggoon def dara dina dina bàyyi mm-hmm. dina bàyyi wala dina dina moytu bu baax mm-hmm. lépp ay ay ay ay ay tettal la wala ay ay ay kii la quoi ay ay njàngal la quoi waaw mu gën a góor góorlu gën a nekk ak carrière am te li mu li muy daj nii ay magam ak ay papam ñu ne yu gën a yu gën a garaaw sax dajal dajagul dara sax dajagul dara yépp ay ay tepp-tepp la rek. dajaguñ hmm. dajaguñ sax dajaguñ sax si ndox ndox bi sax ñëwagul. Hmm. yan bi sax ñëwagul. Hmm. yii dina dëggaat leneen. dina dëggaat yeneen. te dañ koy ñu fii ñu ngi koy gérer dañ koy gérer. barke Serigne Touba. ñun gëmuñu ko du Serigne Touba. billaahi duñu ragal duñu dellu ginnaaw. billaahi. voilà tey ngay tàggatoo. waaw maa ngi tàggatoo sama followers yi sama ami Instagram yi. sama Snap sama Snap sama ami Snap yi. sama ami loob yi sama sama ñëpp maa leen maa leen nañ gën a nañ gën a aimé nañ gën a partagé mhm. mes amis de loob yi ak mes amis de sinap ak mes amis loolu li nga wax ni ñaa ko moom de waaw waaw mais ñaa mooy mhm. mhm. soo fekkee nga nit ki nekk na benn affaire mu jiital ko dañ topp si ginnaawam ba yàlla dafa ñu xewal mooy loolu fii ku ne bëgg na am sa yëf bopp mais tey jii nii ñaa mooy nëmb wan sinapeur yi ñu topp si ginnaawam d' accord waaw ah, xam nga wax wax sa mbaaxu waay. Ah, wàññiwul sa mbaax dara wax wàññi dara sa mbaax. waaw. Mm-hmm. Ah, mm-hmm. donc frère moom maa ngi koy genre bëri man moom mm-hmm. mon grand frère de valeur sama sénateur le sénateur du peuple. Euh, daanaka tungaaru teew ñu ne daal euh, wérante xooxaan tekki tubay tey moom mi nga xam ni mooy Sénégal Bambaly tey bu taxawee wax rek kon li muy wax moom yaakaar naa am na. ci ay firnde ñun nag am na loo xam ne moom mënuñu koo mënuñu koo seede parce que fekkewuñ ko mais comme moom moo jëlee engagement waxal kon euh, ñu ngi bàyyi ñi nga xam ni ñooy suivre ci commentaire yi bu ko defee ah ngeen wax ci seen xalaat nii la demee ñu am contentement ci fekk fi sunu grand boo xam ni vraiment day jàpp ci liggéey muy grand ji bi jàpp na ci liggéey bi recevoir nañu tenal nañu boisson lekk yi macha allah waa ñu ngi leen di nuyu di leen bëggee baax a baax di leen jox yeneen dig dajee ci suñu yeneen émission fi ci people 221 jërë ngeen jëf.